succès yooyu ñu yàlla dimbalee ba nga xam ne am nañ ko ci lu mel ni ancienne piste nga xam ne ëpp na un kilomètre d'avenue ñu dégagé lépp semaine bi dinañ commencé liggéey foofu def fa aménagement yu bees def fa ay jardin public donc tey am na 114 mètres sur les 1 kilomètre 200 yoo xam ne dinañ ko def ci mois de décembre bi tàmbali ko di woo tamit suñu partenaire les partenaires privés ñi nga xam ne ñoo yor entreprise yi ñi nga xam ne dig nañ ñu ne bëgg nañ jàpp ci liggéey bi defar espace public yi bu ko defee ñu mën a sécuriser def lolu nga xamné mom moy mbébétu président de la république dëkk bi gëna set gëna organisé espace public yi ñu delloo ko fu nit wara dox mën fa dox waye tamit fu nit war a euh, doon bërëbu gaay ñu def fu mu doon bërëbu liggéeyukaay. fi ñu amul succès mom dañuy seetaat rek ndaxte loo jéem te mënoo ko da ngay li tuwab di wax il faut reculer pour mieux sauter lolu nak waxtaan la ba xam lan moy li nga xamné moko waral néna la quelques fois mën na am dañoo euh jëfëndiko ay jumtukaay yoo xam ne mën na am dëppoowul ak fañ doon dem. am dafa dëppook fenn lu mel ni stade Iba Mar Diop te dëppoowul ak buntu université léegi nag am na foo xam ne dañ def barbelé état bi investir jënd ay grillage def ko ba nga xamante ne nit xajatu fa mais bañ ko defee li ñu seetlu mooy dafa am ay nit yu dellu siwaat dagg barbelé yi ne fa loolu nag wax dëgg yàlla suñu maslaa àggu ci moo tax am na lu mot ci fanweeru ay nit yoo xam ne jàpp nañ leen ba yóbbu leen ci ci ci defeere leen ak yu demee noonu ba yeneen judd ci ñi ngi xeex tamit fi mu nekk nii ak gravats de chantier yi ndaxte Dakar dafa bëri chantier dafa bëri tabax donc fépp fu ñu dem di fa tabax rek di nga fa gis ne am na ay euh, ay ay ay ay ay constructeurs wala ay promoteurs yoo xam ne seen gravats ak seen suuf dañ koy sotti Sénégal boo dajalee mbalit yi ñuy sotti mbëbës 50 pour cent yëpp suuf la ak gravats de chantier kon nit ñi dañu war a ñu ñu gën leen yee ci gravats de chantier ni ñu koy jëfandikoo ndaxte mën na jëriñ leneen lu dul di ko sànni ci mbali donc ñi koy def tamit service d'hygiène dina leen wër suñu brigade bi dina leen wër ba nga xam ne kuñ ci jàpp di nga fay amende cent mille wala ñu defeere la loolu yëpp nag bokk ci matuwaay yi nga xam ne moom la ñuy waaj jël ko doxal ko